nous suñu mbokk internet info TV ñu ngi leen di sommes di leen ziar aussi di leen jox ku nekk seen di leen dalal ak ci seen plateau matin comme ni ñu koy def euh, saa mu nekk émission da lundi au vendredi fii si info TV euh, su ko rek ñu leen di di rek euh, dafa nekk lu jëm ci Sénégal une très bonne fête à tous les moments du monde particulièrement maman maman chérie maman Fat Sow euh, di ko ñaanal gudd fan wér gi yaram yàlla nañ ko féetee at yu bare bare euh, ci noonu rek euh, mooy souhaité tamit un ak ki nga xam ne mooy suñu rédacteur en chef ñu koy wax Amadou ñi nga xam naa ni moom jamono ji moom daat yi rek jël congé te dinañ ko namu bu baax a baax ci plateau ca caaro yu matin waaye aussi dinañ ko namu bu baax a baax ci plateau càmbaru bis bi Omar Gueye ma bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet yu caaro info TV. maa ngi lay nuyu soxna Amina di nuyu yu Info TV yëpp di leen di ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom comme fi nga tàmbalee rek di souhaiter une très bonne fête à tous les moments du monde particulièrement sama yaay ku ci mel ni yaay Awa Gaye yaay Marie sama tante Bourika ainsi que toutes les moments du monde di souhaiter tamit heureux ménage suñu rédacteur en chef muy Amadou Ñing mu doon am xew ba gis nañ ne dafa jël congé di xam la ne tamit suñu émission bi ñu ngi ciy ànd ak borom troisième menuiserie métallique Mansour mu nekk fële ci caaro yi soo wàccee li nga xam ne mooy pont bi en face Kër Sër lépp lu nga xam ne bëgg nga ko ci wàllum porte en fer en aluminium wala boog lépp lu jëm ci wàllum meublement rek soo demee fële ci Mansour di nga ko fa am ak ay prix yu yomb incha allah. Euh, di nga ko fa am ci ay prix yu yomb mu di Mansour borom troisième daal di nekk ndaw nekk fii di diwaanu Caaroy samp rek li nga xam ne moo di entreprise euh, di bay waaram bu baax a baax Linga li nga xam ne moo jëm ci wàllu menuiserie métallique waaye tamit mbokk internet yi képp koo xamante ni da nga bëgg salon wala sax chambre à coucher yu mucc ayib wala sax li nga xam ne mooy porte en fer wala sax en aluminium mun nga ko dem seeti Mansour borom troisième wala nga woo ko ci 77 975 75 95 77 975 75 95 mu mel ni rek dañuy daal di xuus rek dugg si li nga xam ne moo di xibaar yi ñu koy dooree rek ab évance évasion maanaam euh, daw gi nga xam ni rëcc sax laa ko mën a waxee gi nga xam ni euh, booy jinne rëcc na ko euh, ci noonu rek mel ni rek euh, ñi nga xam ni ñoo féete ci wàllum administration bi moom euh, jàpp nañ ni rek bile mbir dafa rek laale complice bu baax a baax. mu nekk mbir bu nga xam ne jaaxal na ñëpp surtout ki nga xam ne mooy directeur régional de l' administration pénitentiaire de Dakar moom muy xamle démb ci fi nga xam ne mooy RFM ne kii di booy jinne dafa rëccaat rëcc boobu nag nekk li ko jaaxal parce que moom suñ sukkandikoo ci ay kàddu yu mu joxe nee na rëcc boobu am na benn complicité bu nga xam ne am na ci complicité bi nag nee na mën na nekk au niveau intérieur. wala boog au niveau extérieur waaye lépp lu ci mën a am rek ñoom dinañ amal benn enquête bu nga xam ne dinañ saytu yooyu mbir parce que moom tamit mi ngi xam le ne Boy Djiné fi ñu ko defoon nekk na nga xam ne quartier am sécurité la bu am surveillance te képp ku nga xam ne détenu nga rek pour nga génn foofu dina nekk lu jafe lim jàpp daal mooy nekk na lu nga xam ne complice la te ñoom seen wàlla dinañ ci def lépp lu nga xam ne lu war la pour téyewaat ki nga xam ne mooy booy Djiné waaye tamit su waree am ay sanction ñu sanctionné ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci boobu mbir ñi war a rek jàppale ci boobule mbir mu nekk mbir moo xamante ni doy na waar lool ndax Omar Gueye booy jinne du lu guleet muy rëcc euh, saa su ne ñu dugal ko ci kaso yi rek dafay daal di jël ay fiitam moom daal di daw nit yi sax naan xëy na affaire mystique la peut-être affaire mystique mais man jàpp ma loolu li ma jàpp dafa am ben négligence bu nga xamné amna ci l'administration pénitentiaire te complice bob mom mënul ko ci dindi parce que ben détenu bu nga xamné dañ la japp tëj la mu am ay garde yi nga xamné ne dañ lay garder pour nga recc nek na lu nga xamné ne lu ñuy jaaxal à moins que mu nek ben genre film comme Prison Break su recc dinañ ko mëna a comprendre parce que c'est de l'imaginaire c'est de l'imaginaire ñu àdd rek euh, wax ci leneen euh, biir le mbir nag dañuy wax ci li nga xamné mo jëm ci wàllu jàngaleeg jangalé mu mel rek euh, mbirum bag blanc bi foofu ci diwaanu Rufisque ay révélation yu graaw nag euh, doon na ci rek euh, daal di tukkee ki nga xam ne moo di ki def boobule mbir sax dafa mel ni daan na ci àddu Omar Gueye ana moo ci gën a fës. mu mel ni coowal góor jigéen moo ngi gën di woy fii ci réewum Sénégal waaye tamit fële ci Rufisque ñoom desuñ ci benn yoon ginnaaw benn bag blanc bu nga xam ne amaloon nañ ko benn professeur d'anglais joxe benn texte bu nga xam ne day faire l'éloge waaye tamit di dooleel wala boog di encourager ñi nga xam ne mooy góor jigéen jigéen ñi loolu nag kenn ci ay collègue am ki nga xam ne mooy Maimouna Faye moom nee na bi mu liiree texte bi rek dafa ne lii dañ ko war a retirer parce que nekk na texte bu nga xam ne jaarul yoon benn yoon waaye tamit bi ñu waxee ak ñi nga xam ne mooy administration bi ñoom dañu jàpp ne dafa nekk une question d'actualité duñ ko retirer waaye tamit li nga xam ne mooy corps professoral bi yépp ñoom ñi ngi koy ñaawlu ainsi que l'ensemble de la population sénégalaise te ñoo ngi ciy ñaan ñu jël ci ay sanctions parce que trop c'est trop. ñu ngi ciy ñaan rek mal nañ ab tourné. ci li nga xam ne moo di région yi euh, ba tax na rek li nga xam ne moo di emploi des jeunes moom dafa mel ni rek euh, daal nañ koy dégg fu né waaye tamit ñi nga xamante ni rek ci ba ñuy inauguré hôpital bu Kaffrine la ko njiitu réew mi daal di yëkkatee Omar Gueye foofu la ko daal di yëkkatee ci benn tournée bu nga xam ne économique lañ koy wooye ki nga xam ne mooy Macky Sall moo ngi wër di dem fi nga xam ne mooy ci Sénégal yépp waaye fële ca Kaffrine gis nañ ko mu nekkoon fa di une emploi nag dafay nekk lu nga xam ne day permettre ñu mën a amal li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi nag comme niñ ko gisee fii ci Sénégal nekk na benn question bu nga xam ne c'est prioritaire ci ki nga xam ne mooy Macky six département yëpp pour ñu mën a jàppale waaye tamit financer ndaw yi ci seen wàllum liggéey bu baax a baax ñu financer ndaw yi rek ci seen wàllum liggéey bu baax a baax mu mel ni rek bile mbir jamono ji neen lu jëm ci wàllum découpage administratif yi mu mel ni rek dëkk boobu di Medina Baye jamono ji nag dafa mel ni dañ ko daal di bëgg a def rek ab commune découpage administratif bi moo ngi woy tamit di lëmbe li nga xam ne mooy Sénégal ginnaaw ay propos yu Alioune Sall yëkkati woon am na ñu ko ñaawlu waaye tamit waa Medina Baye ñoom dañoo jàpp ne découpage boobu ci Kaolack nekk bërëb bu nga xam ne c'est une c'est un lieu boobu nag dinañ fay dalal li nga xam ne mooy gàmmu dee ñaseen loo tax ñoom ñu jàpp gàmmu bi ampleur bi mu am ak à travers la sous raison ku nekk dafay ñëw war na mën a nekk benn commune commune bu nga xam ne bépp recette bu nga bu ñu am foofu day descendre ci li nga xam ne mooy commune Medina Baye parce que ñoom dañuy jànkoonteel ay difficultés yu nga xam ne notamment ci wàllum infrastructure ci wàllum tali yu bon waaye tamit manque d'hôpitaux manque d'hôpitaux yooyu jàpp nañu ne suñ nekkoon li nga xam ne mooy commune Medina bàyyi dina weesu fii bu ñu nekkoon li nga xam ne moo di commune euh, Medina Baye daat koy def rek commune yooyu la jafe-jafe rek dina daal di saafarawu ñu dañuy dem rek euh, ci li nga xam ne moo jëm ci actualité bu bàyyeekoo bitim réew mu mel ni rek euh, CEDEAO jamono ji rek dafa daal di suspendre dëkk bii di Mali lan moo waral lu ni mel Omar Gueye. dafa suspendre li nga xam ne moo di dëkk bii di Mali Mali nag ku ko xam-xam ne depuis quelque temps am na ay attroupement yu fa commencé am ba benn coup d'état naroon fa am mu échec waaye ki nga xam ne mooy njiitu réew mi dañ ko fa jëlee woon ginnaaw loolee tamit amaat na yeneen jàmmaarloo ba tax na li nga xam ne mooy le cours de la CDAO décide suspendre ki nga xam ne mooy Mali pour li nga xam ne ñooy autorité inter yi ñu toog waxtaan amandile ay élection yu nga xam ne ay élection yu libre la waaye tamit ay élection yu transparente ci geneen wàll gi tamit ñoo ngi gis ki nga xam ne mooy Macron moom moo ngi menacé ne day retirer li nga xam ne mooy les troupes français fële ci Mali parce que coow Mom moom arrangé wu leen benn yoon te ñëpp dañoo jël tor bi teg ko ci ndodd li nga xam ne mooy France coow Mom moom arrangé wu leen benn yoon te dañoo jël rek ndodd lépp coow li daat kay teg ci ndodd mi di France euh, ci noonu rek euh, dañuy daal di rek àddu ci leneen Omar Gueye mu ni li gën a fas ci li nga xam ne moo xëyee tey ci wàllum actualité wala ci wàllum euh, li nga xam ne mooy journaux yi ci wàllum actualité la ñuy desandi ba tey waaye dañuy xëy ak li yëglekaay yi andi tey ci seen xët yu njëkk ñu dem ci réew mi lu ñu àndil réew mi quotidien ci xatam bu njëkk réew mi quotidien ci xatam bu njëkk daat ñuy àndil euh, nataalu ki nga xam ne moo di Ndiaga Dièye mu nekk euh, nit ki nga xam ne nag euh, dañ ko faat foofu di diwaanu France te rek ab bal lañ ko daal di dóor rek mu nekk mbir moo xamante ni am na ci week-end bi ñu génn ci noonu rek dañuy desandi ci boobule xët ba tey di réew mi quotidien mu mel ni rek ki nga xam ne moo di El Hadji Momar Samb moom mi ngi naan ce qu'il faut retenir de la tournée jamono ji ñi nga xam ñoo faré ci walum eh, Benno Bokk yaakar ñi ngi daal di rek wane seen doole waaye tamit dafa mel ni rek dañoo nekk di def ab campagne dirigée eh, ci élection locale yi nga xam ne moom la dëgmal Omar Gueye ñoo ngi nekk di wane seen doole waaye ku gis li nga xam ne mooy tournée économique bi au fond nga xam ne li ko laal wàllum politique kese la parce que gis nañ benn Macky Sall bu taxaw en tant que président waaye tamit gis nañ ki nga xam ne mooy benn Macky Sall mu taxaw en tant que militant wu APR waaye tamit bu benn bokk yaakaar ñu jàll ci beneen yëglekaay li quotidien lu mu ñu andil ci xëtam bu njëkk lii quotidien ci xëtam bu njëkk daan ñuy andil nataalu ki nga xam ne moo di Youssou Ndour waaye tamit eh, nataalu ki nga xam ni moo di eh, ki nga xam ni moo di eh, directeur bu 2S di El Hadji ci noonu rek mu mel ni rek jamono ji nag dafa mel ni rek am na ay sàcc yoo xamante ni am na sax ci diggante 2STV ak Etincelle Etincelle dafa mel ni noonu la mu mel ni rek jamono ji moom problème bu baax am na ci ñaari kër yooyu Euh, dañuy desandi ci bobu lay xët ba tey rek mu ñuy andil natalu ki nga xam ne moo di njiitu réew mi mu mel ni rek li nga xam ne moom la investir foofu ci diwaanu Kaffrine xayma bi mi ngi tolloog ci 126 milliards de francs CFA suñuy koppal mu mel ni rek li nga xam ne mooy conseil des ministres yi ñu décentralisé woon ci atum 2015 euh, nekk na loo xamante ni ay ay promesses yoo xamante ni la kenn teniru ko boobu ba léegi Omar Gueye waaw ci wàllum El Hadj ak kii nga xam ne mooy Youssou Ndour nekk nekk na problème bu nga xam ne problème bu yéeme la parce que man jàpp naa ne télé bu nga xam ne télé bu mag la comme TFM warul mën dem di sàcc li nga xam ne mooy signalu jàmbur bu dee nekk na benn information bu nga xam ne c'est avéré bien sûr nekk na lu nga xam ne ñoo ngi koy ñaawlu te dina yàq seen réputation bu baax a baax ci wàllum 126 milliards yi tamit may wax ne du parce que Sénégal yàgg nañ gis ay investissement di fi ñëw lu nekk di fi ñëw xaalis bu bëri mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu mooy nekk suñ problème parce que au finish da ngay gis ne xaalis boobu dañ koy utiliser pour des fins politiques waaye tamit ci affaire yi par parloo lay nekk ku far ci man ma jox la xaalis financier la waaye keneen ku nga xam ne da nga am projet war a mën a liggéey suqali réew mi dañ lay boot di loolu moom nekk na lu ñaaw ñu jàll ci beneen yëglekaay l' lu mu ñu andil ci xëtam bu njëkk l' évidence yéen kaay ci xëtam bu njëkk daal ñuy andil ay yi nga xam ne nag euh, dañ ko sànni bu baax a baax ki nga xam ne moo di Aminata Touré euh, ci noonu rek Maodo Malick Diallo moom moom ma ngay défendre bu baax a baax li nga xam ne moo di boppam euh, dañuy desandi ci boobu lay xët ba tey rek mu mel ni rek mi ngi ñu andil nataalu ki nga xam ne moo di njiitu réew mi ma Sall waaye tamit ki nga xam ne moo di njiitu réew ki nga xam ne moo di uh, jëwriñ ji nga xam ne moo yor wàllum wér-gi-yaram uh, di Abdoulaye Diouf Sarr ba tax na rek uh, ki nga xam ne moo di Sall moom moom ma ngay dikk askan bi yeneen inauguration yoo xamante ni ndax na ko amalaat bu baax a baax fii ci duwaanu Sénégal mu mel ni rek dañuy àddul wax ci leneen mu di Serigne Mboup ci jamono ji nga xam ni nag élection yi ñu ngi koy dëgmal ma ngay àddu rek si gestion municipale bu kaw Kaolack mu mel ni rek am ñu bëri ñoo xamante ni sax yaakaar nañ ni Serigne Mboup mooy nekk l'homme de la situation war nañ ko mën a teg rek fopp foofu ci diwaanu Kaolack ngir yenn jafe-jafe yi nga xam ne moo amee foofu ci le dëkk Omar Gueye waaw man xam naa ci wàllum inauguration yi laay ñëw mooy Macky Sall promesse yu muy def vis-à-vis de la santé gis nañ tamit ci genn wàll gi wax dëgg yàlla moo ngi góorgóorlu parce que tamit mënoo ñëw ci un état nga ne lépp dafa nekk lu nga xam ne bilan bu négatif la bilan bi c'est un peu mitigé mais ci wàllum wér-gu-yaram gis nañ ne moo ngi def ay pas surtout avec ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf sar ñoo ngi liggéey ci wàllum santé bi ba gis nañ ne ñoo ngi commencé taxawal ay hôpital yu bëri hôpital nag mooy la base hôpital éducation ñaar yooyu man jàpp naa ne soo amee xam-xam te wéroo doo mën a wéyal sa xam-xam waaye tamit soo amee xam xam-xam soo soo wéree te amoo xam-xam tamit day nekk benn problématique te ñu ngi leen di ñaan ñu continuer sur ce lancé pour jàppale li nga xam ne mooy askanu suñu gaal ñu jàll ci beneen yëglekaay Dakar Times mu mel ni dañuy desandi ci tournée économique boobu ba léegi. mu mel ni rek dañuy desandi ci tournée économique ba tey rek ba tax na rek xët gii di ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall mu mel ni rek nekk na ab tournée xamante ni li nga xam moom la ñuy mobiliser ci ay doomu aadama Ibrahima nekk na loo xamante ni takk na lool euh, Omar Gueye waaw soo xoolee lii rek mooy wàllum politique da ko lal ñoo ngi wax tournée économique waroon na andi à la une des journaux lu nga xam ne day jëmale Sénégal kanam waaye en revanche dañuy gis benn mobilisation la ñuy andi loolu nag ku ne mobilisation wax ne politique kon tournée économique bi mu neen ci dàq benn yoon mbirum politique ñu jàll ci beneen yëglekaay muy le mandat ci xatam bu njëkk lu mu ñu andil. le mandat ci xatam bu njëkk daan ñu andil nataalu gi nga xam ne moo di njiitu réew mi waaye tamit ki nga xam ne moo di Moustapha Niass nekk njiitu assemblée nationale ci noonu rek mu mel ne rek dañuy xamal ne rek ñi nga xam ne ñooy parti bu AFP réitéré bu baax a baax seenub engagement waaye tamit seenub ànd sax ak ñi nga xam ne ñooy euh, Benno Bokk Yaakaar dañuy desandi si boobulee xët ba tey rek ñu gis ni rek fi nga xam ne moo di diwaanu Sacré-Cœur ñi nga xam ne ñoo di habitants yi euh, daal di dañoo rek euh, ànduñu benn yoon ci cantine yi nga xam ni nag nar nañ ko amal rek foofu si diwaanu jardin public bi ci noonu rek mu mel ni rek xët boobu di la mandat daal di def ab pàcc bu yaatu yaatu ci li nga xam ne moo di xeesal lekk ak jigéen yi nuñ koy utiliser fi ci douane Sénégal mu nek mbir mo xamante yamatul ci jigéen ni kese góor ñi sax dañuy gis ni amna ci si ño ñoo dañuy diwo yoy les produits yi nga xamni dafa am hydroquinone nga xamni tamit dina am ay jeexital bu baaxa baax lu jëm ci walum wér yaram ci noonu sax dañuy desandi ci bobu lay xët ba rek mu ñuy andi la li nga xamni modi inondation yi ci jamono ji nga xamni nak li nga xamni modi moo euh, euh, nawet bi sax li ci dess bareetul ndax rek ñi ngi waaj a dugg ci weeru juin tegtal euh, faral na lu ñu gis loolu weeru juin muy daal di taw rek euh, fii ci duwaanu Sénégal rek mu mel ni rek am na ay koppaar yu bëri yoo xamante ni euh, bëgg nañ ko cee def rek lu toll si 83 milliards ci suñuy koppar ngir rek mën a wàññi bu baax a baax jéy wala sax li nga xam ne mooy yàqute yàqute yi nga xam ni nawet bi fan da koy faral di jur Omar Gueye nekk na lu nga xam ne dañ koy regretter chaque année gis nañ ne nawet bi jeex na bu yàgg waaye defuñ ci benn yoon ay démarche bàyyiwaat nag bay nawet di ñëw

ni rek amul woon benn pouvoir mystique à chaque fois bu rëccee ci yooyu lay kaso rek dafa mel ni rek am na ñu ko jàppale bu baax a baax mu nekk mbir moo xamante ni rek dan nañ ci ubbi bu baax a baax li nga xam ne moo di ay enquête xam naa ni rek ne tuuti ñu daal di mën a xam rek ana lan moo tukkee ci yooyu les enquêtes mu mel ni rek foofu ci diwaanu Podor ki nga xam ne moo di Racine Sy moom ma ngay acculé bu baax a baax ki nga xam ne moo di Aïssata Tall Sall ci jamono ji nga xam ne ñu ngi jëm ci élection locale yi mu mel ni rek kenn xamagul euh, kan mooy wutu moroomam euh, ci boobule diwaan euh, du Podor Omar Gueye waa ci wàllum Boy jinne moom xam naa il faut ma def ci benn jàngat parce que Boy Djiné jàpp naa ne rëcc yi nga xam ne moo ngi koy rëcc ci wàllum administration yi ñu koy yóbbu wala boog li nga xam ne mooy kaso yi ñu koy dugal nekk na lu nga xam ne lu ñaaw la lu ñaaw la parce que man avant tout damay condamner ñi nga xam ne mooy administration pénitentiaire bi ñooñu mënuñ la denk nit nga koy bàyyi muy rëcc parce que dafa nekk benn menace vis-à-vis de la société waaye ñoom tamit en quelque sorte dama leen di comprendre parce que li nga xam ne mooy police wala gendarmerie dafa am lu ñuy wax benn hiérarchie yow da ngay def lu dul obéir à l'ordre bu dee tamit dafa am ay ordre yu nga xam ne day jógee ci kaw dal sa kaw soo ko jëfeewul mën na la andil ay sanctions te loolu lépp rek dafay wone encore une fois que notre justice n'est pas indépendante ñu jàll ci benen beneen kay l'info lu ñu andil ci xatam bu njëkk. l'info ci xatam bu njëkk daal ñu andil nataalu ki nga xamni modi moo di euh, réew mi di président Macky Sall fofu ci douane Ndukumaan melni rek mag ñuy xamal ki nga xamni modi moo di euh, njiitu réew mi ma ngay daal di rek remobiliser bu baaxa baax ñi nga xamni ñoo di ay troupam euh, ci nonu rek ñu gis nak ay nit yu takko takku ñoo daal di accueillir sax ki nga xamni modi moo di njiitu réew mi foofu ci douane Ndukumaan ci jamono ji nga xamni nak ñi ngi doon amal bu baax a baax inauguration euh, bu hôpital bu kafring dañuy desandi ci boobu la xët ba tey rek ñu ngi xamal 95e anniversaire bu njiitu ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal euh, di euh, président Abdoulaye Wade mu mel ni rek ñu ngi naan Wade un homme heureux ci noonu rek ñu desandi si boobu la xët ba tey rek ki nga xam ne moo di Moustapha Niass ci li nga xam ne moo di élection locale yi ñi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu ngi ñu naan rek Niass annule le parrainage et appel à l'esprit esprit euh, de de concertation au sein de bokk Benno Bokk Yaakaar mu melni rek ma ngi leen di wo bu baakha a baax ngir ñu daldi rek mbolo doon ben ndax li nga xamni mom lañ soub rek ñu dal tay mëna daldi atteindre sen objectif Omar Gueye ñu jall ci benen beneen kay l'observateur ci xëtam bu ñëk lu ñu andil l'observateur ci xëtam bu ñëk dal ñuy andil Natalo ki nga xamni modi Idrissa Seck Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ki nga xamni modi euh, Karim Wade euh, ci jamono ji nga xamni nak ñi ngi deugmal élection locale yu 2022 mille vingt rek nee tous dans le pétrin mu rek ñom rek ñom ñent ñoo ñu naru ñu bokk rek euh, ci yoy le jongante ba tax na rek euh, ñi ngi naan ki nga xamni modi moo di mi di Macky Sall mom moy euh, chefu majorité bi rek ci non rek dafa melni sax amna ay coppite yo xamantene rek amal nañ ko ci walu yoy le élection ndax ñu ngi xamal ni rek duñu ñu daal nangu rek ben récépissé ci non rek ñu gisaat rek ci xëtu yëg ci

sax euh, ci li nga xamni modi kasse yoyu mu nek euh, mbir bo xamanteni duñu gulet ndax nek na lo xamanteni euh, da koy da koy fay da fay faral di am bu baaxa a baax ci nit koku nga xamni modi Boy jinne Omar gay nek na lu nga xamne du gulet japp na ne tayef la ci li nga xamne moy ci suñu njiit ñu jall ci yegle kay L'As Quotidien lu ñu andil ci xatam bu ñeek ci xatam bu ñeek mu ngi ñu andilaat natalu ki nga xamni modi njitu rew mi di Macky Sall mu melni rek nek na di amal ab série d'inauguration bo xamanteni rek ci jamono joju mi ngi muy ab mu woote rek euh, ñu daal di doon benn ci responsable yu benn bokk yaakaar yi nga xam ne nag ñoo faree foofu ci diwaanu Kaffrine mu mel ni rek journal bi mi ngi ñuy xamal rek ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall lance les locales rek ci jamono jooju nga xam ne nag ñu ngi waaj li nga xam ne moo di élection yi nga xam ne moo jëm ci wàllum gox gi gox goxaat yi mu mel ni rek njiitu réew mi moom jamono jooju mi ngi pare bu baax a baax li nga xam ni mooy euh, waa Benno Bokk Yaakaar ñu daal di nekk benn rek ngir rek li ñu bëgg ñu war a rek ñu daat koy mën a am Omar Gueye nekk na benn mobilisation bu nga xam ne bu am njëriñ la waaye tamit ci wàllum politique moom mobilisation nekkul ñi nga xam ne ñooy dem ci urne yi loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que soo xoolee ba ci seen mobilisation bi am na ay vidéo yuy daw yu nga xam ne ay militants yu féetee ci yeneen parti ñëw foofu mais cause bi mooy dañ ñoo fay pour ñu mën a teew fii loolu tamit nekk na lu nga xam ne ay naxaate la ci wàllum politique ñu jàll ci beneen yëglekaay direct news lu mu ñu andil ci xëtam bu njëkk. direct news ci xëtam bu njëkk daan ñuy andilaat nataalu ki nga xam ne moo di njiitu réew mi waaye bii yoon nag eh, dafa def ab jàngat bu yaatoo yaay yaatu ci li nga xam ne moo di hôpital bu Kaffrine bi nga xam ne nag eh, li ñu ci def eh, ci ay koppar toll na ci vingt milliards de francs fa waaye tamit am na ay capacité yoo xamante ni mën na jël lu toll ci cent cinquante lits ci noonu rek.

amal boobu lay tournée mu mel rek amna ay personnes yo xamante ay mal intention lay nañ euh, ndax rek euh, jamono ji ñi ngi daal di def euh, lu ne ngir rek mun a yàq boobule mbir Omar Gueye dañuy desandi si boobule xët rek mu mel ni rek ñi nga xam ne ñoo di waa SODAV moom jamono ji nga xam ne nag ministre bi daal doon daa doon nañ wax ni rek dinañ leen daal di rek càmbar wala sax dinañ leen daal di audité ci jamono ji nga xam ne nag ñi ngi jàpp ni dafa am gestion nébuleuse waaye tamit ay njuuj njaaj yoo xamante ni eh, ma nga fare rek ci boobu lee bërëb di fi nga xam ne mooy diwaanu Sodav ñu jàll ci beneen yëglekaay alerte lu ñu àndil ci coton bu njëkk mu mel ni dañuy desandi ci wàllum tournée économique bu Macky Sall ba léegi. dañuy desandi ci wàllum euh, tournée euh, économique bu Macky Sall moom alerte moom mi ngi alerte rek bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di opposition bi ndax jàpp nañ ni rek dañ leen malmené bu baax a baax waaye tamit ki nga xam ne moo di njiitu réew mi moom mi ngi sonné rek li nga xam ne moo di riposte bi foofu ci diwaanu Ndoukoumane mu mel ni rek dañuy desandi si boobu la xët ba tey rek Moustapha Diop moom moom jamono ji mi ngi wane yoonam bu baax a baax ci li nga xam ne rek moo di élection locale yi nga xam ne rek. moom la ñu dëgmal Omar yi ñu daal di rek àddu wax ci leneen. waaw soo xoolee lii comme ni ko Macky Sall waxee dafa nekk benn riposte parce que Olof Ndiaye day faral di wax ne lu yëngu lu nekk li ko yëngal moo ko ëpp doole te Macky soo xoolee événement yi fi amoon ci février ak mars da ko yëngal bu baax a baax lii nekkoon na lu nga xam ne c'était une obligation pour mu mën a andiwaat li nga xam ne mooy ay militants waaye tamit ñu féetee ci moom may leen doole bu baax a baax ñu jàll ci beneen yëglekaay Vox Populi lu mu ñu andil ci xëtam bu njëkk. Vox Populi ci xëtam bu njëkk moom tamit daal ñuy andil lu jëm ci wàllum euh, tournée économique bi bi ndax mag ñuy wax rek Macky sem économie et veut récolter des votes mu melni rek ci jamono yi nga xam mi ngi def inauguration euh, deful dara si Mali foro ni ko euh, olof di waxee rek ki nga xam ne moom mooy njiitu mi daal nay wax rek ay ci li nga rek euh, bëgg ci élection locale mu mel ni rek ñu ngi naan Boy Djiné moom ñu ngi confirmé nii rek ni moom génie la euh, te tour bi ñu ko tuddee rek di Boy Djiné nekk na loo xamante ni du hasard mu mel ni rek dañuy desandi si boobu lee xët ba tey rek ki nga xam ne moo di Aïssata Tall Sall mi ngi débarqué ak 50 millions ak ay moulin waaye tamit ay pompe ay pompe agricole foofu ci diwaanu Podor mu mel ni rek jamono jamono ji li nga xam ne moo di jongante yi ngir rek daal di jël li nga xam ne moo di élection gox yeeg goxaat yi daan nay tàmbali rek Omar Gueye nay tàmbali bu baax a baax ku nekk yaa ngi bay sawaar di def li nga xam ne mooy ay campagne déguisée loolu laa ko mën a woowee xam naa dañuy takk daal lay rek dem ci wàllum sport cukki-cukki cukki-cukki comme ni ñu koy waxee tey moom damay cukki-cukki ndax sol moo talon ayca ñu xool yi yéenekaay yi luñ ñu àndil record ci wàllum sport ci xëtam bu njëkk record yéenekaay yi ci xëtam bu njëkk daan ñuy àndil euh, ki nga xam ne moo di euh, Chelsea mu mel ni rek euh, ci jamono ji nga xam ne nag ma nga doon ameel li nga xam ne moo di ay jongante daan nay gagné sax bu baax a baax mu mel ni rek ñu ngi ñuy àndil ci boobu lay xët ba tey rek ki nga xam ne moo di Mendy mi ngi décroché li nga xam ne moo di xaal bi ci li nga xam ne moo di mu nekk loo xamante ni nag lu historique la eh, dañuy desandi ci boobu lay xët ba tey rek mu mel ni rek jamono ji nga xam ne ñu ngi amal kan beach soccer fii ci duwaanu eh, final yi eh, ki nga xam ne moo di gaynde yu Sénégal ñoo jël sixième titre bi Omar Gueye ci jamono ji nga xam ne nag ñi ngi waajal li nga xam ne moo di mondial bi foofu ci diwaanu Russie ci noonu rek dañuy desandi si boobu lay xët ba tey rek mu mel ni rek jamono ji li nga xam ne moo di làmb gi daal di nay eh, cartonné waat bu baax a baax ndax rek gis nañ li nga xam ne moo di xumbute yi eh, daal nañ daal nañu ñëwaat bu baax a baax ginnaaw rek ba ñu génnee bu baax a baax eh, ci li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nga xam ne toog nañ lu toll si at ñoom kenn barewul ndax dara waralu ko woon lu dul jafe-jafe coronavirus bi Omar Gueye. waaw ci wàllum sport moom xam naa mënuñ ci wax sans ñu wax ki nga xam ne mooy bu Chelsea bi nga xam ne moo remporte lidée Ligue des Champions Ligue des Champions bi nag da ko doon jonganteeg ak ki nga xam ne mooy Manchester City mu nekkoon 100 pour cent anglais waaye tamit ki nga xam ne mooy Mendy nekk suñ gardien moom dafa jël li nga xam ne mooy première Ligue des Champions mu nekk quelque chose d'historique ñu koy féliciter bu baax a baax parce que nekk na lu nga xam ne fierté la ci wàllum Sénégal soo xoolee ci geneen wàll gi tamit li nga xam ne mooy wàllum làmb ñu ngi doon amal li nga xam ne mooy drapeau chef de l'État démb fële ci Kaolack mu nekkoon benn réussite bu nga xam ne bu bu satisfaisante la ñu jàll ci beneen yëglekaay réew mi sport lu mu ñu àndil ci xëtam bu njëkk. réew mi sport plus euh, ci xëtam bu njëkk daal ñu àndil euh, jongante li nga xam euh, ni rek ki nga xam ne moo di njiitu réew mi mi ngi félicité bu baax a baax ki nga xam ne moo di Edouard Mendy waaye tamit ci jamono jooju rek dafa mel ni rek ma ngay fàtte bu baax a baax yooyu lay gaynde ñi nga xam ne nag ñi ngi rek remporté bu baax a baax li nga xam ne moo di jongante yi nga xam ne doon ci walum bit beach euh, soccer nga xamni ne jël nañ li nga xamni modi 6e kan bi dañuy desandi ci bobu le xet ba tay Ligue des championnats mu melni rek ki nga xamni modi suñu gardien bi di Mendy euh, daal nay triompher bu baax baax ab chiffre mu melni rek bi moy guleet muy dal di jël lek li nga xamni modi Ligue Ligue euh, des champions Oumar gay waye tamit ci diwanu river Liverpool mu melni rek ñu ngi naan Sadio Mané et Salah reste li tax ñuy reste nak xaw ko xana ma bàyyi rek nga dal ci andi ab yaatal. wa ci walum Ligue des champions lay desandi ba léegi ñi fàtt fàttali ni ki nga xam ne mooy Sadio Mané jëloon na ko ak équipe bi di Liverpool Mendy tamit ñëw jëlaat ko ak équipe bi nga xam ne mooy Chelsea waaye ci wàllum bi choqueur bi man dama jàpp ne ñoo ñooñu lañu war a gën a jàppale sax jamono ji ko football parce que ñoom am nañ fi lu toll ci six trophées au niveau national fii ci wàllum Afrique waaye tamit dis nañ à chaque fois rek li nga xam ne mooy président yi fi nekk dañ leen di fàttee bu baax a baax te ñoom heure bu ñu demee dañuy porter li nga xam ne mooy drapeau Sénégal la te heure bu ñu demee tamit dañ koy jël actuellement jël nañ ko six fois te dañ ko toflante li nga xam ne mooy trois fois consécutif loolu nekkul lu nga xam ne lu yomb la waaye Sadio Mané ak Salah tamit ci wàllum mercato bi jàppoon nañ ne dañ fay jógee jógee fi nga xam ne mooy Liverpool am na sax ay information yu génn di wax ne Salah mën na dem fële ci Liverpool waaye finalement tamit buñ jàpp sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooy dirigeant yu nekk fële ci Liverpool ñoom ñaar ñooñu ñëpp mën nañ descendi fi nga xam ne mooy équipe boobu di Liverpool ñu jàll ci beneen yëglekaay le stade lu mu ñu andil ci xatam bu njëkk. le stade yéenekaay yi daal ñuy euh, ki nga xam ne moo di Mendy sax euh, ci jamono ji nga xam ne nag remporté nañ bu baax a baax li nga xam ne moo di Ligue des championnats yi euh, ci noonu rek dañuy descendi ci boobu lay xët ba tey rek mu mel ni rek jamono ji li nga xam ne moo di président bu final. mel eh, bu kaf bi juste que eh, mi ngi mel ni rek eh, li nga xam ñoo di lion yi jamono ji rek dafa mel ni rek ñi ngay inspirer bu baaxa baax ñi nga xam ñoo di Ngale Silla mu mel ni rek ñom amna li nga di exploit bu yaatoo yaatu bo xamanteni def nañ ko mais ni ngi koy waxe saa su ne rek mu mel ni rek senegal li nga sport mom football lañu gëna daal di faratal rek ke yenen discipline yi alors que lepp rek ci la bok football lañ gën a farataal waaye tamit man dama jàpp ne fii ci Sénégal amul ministre du football mais ministre de le sport lañ am donc lépp lu nga xam ne dafa laale wàllum sport rek war na ci teg loxoom bu baax a baax Mendy tamit nii xam le ne battre na benn record cinquième record mu nekk gardien bu nga xam ne macha allah nekk na ci équipe type bu Ligue des champions équipe type nag suñ koy wax mooy onze joueurs yi nga xam ne dañ leen di noome ñu nekk équipe bi nga xam ne ñoom ñoo gën a farlu wala boog ñoo gën a wonee seen bopp ci phase Ligue des bi nag loolu tamit nekk na benn fierté bu mag ci ñu jàll ci beneen yëglekaay suñu làmb

daal nay détourné bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di euh, diwaanu Thiès waaye tamit mu mel ni rek week-end bi ñuy jëm euh, tombeek juróom jàpp juróom ni fan ci weeru juin nekk na ab euh, week boo xamante ni dafa nar a explosif ndax ki nga xam ne moo di Nanda Fall dina jongante ki nga xam ne moo di Dame Sène waaye tamit ak sox dina daal di jongante rek ki nga xam ne moo di gàmmu Gueye Omar Gueye waaw làmb ji moom jamono ji mi ngi ala daw mi kon ñu koy waxee saa su nekk c'est un combat royal royal parce que ki nga xam ne mooy Modou Lo moo yor li nga xam ne mooy roi des arènes te kii di Ama Baldé li nga xam ne mooy couronne boobu rek la bëgg waaye Modou Lo tamit waaw comme niñ ko foofu ndam bu baax a baax parce que sama mbër la rëgg la féete day xañu wërsëg suñu jàllee tamit waaw suñu mbër la kon xam naa damay maas nun gi suñu jàllee ci wàllum làmba ba tey tamit démb gis nañ ne ci trophée par équipe li nga xam ne mooy région de Diourbel moom daal dinañuy defal bagage bu baax a baax waa Thiès xam naa fii la ñuy yemandi Amina fii la ñuy yemali Amina Omar Gueye mu mel ne rek émission bi ki nga xam ne moo di Mansour borom troisième rek moo ñu tudd doon gunge rek ma bàyyi nga tàggal tàggoog mbokk internet yi. waaw di am mbégte ak contentement comme ñu koy defee saa su nekk rek teew ci li nga xam ne mooy plateau Caaroy matin Caaroy matin nag ñi fiy waxtaanee lépp lu nga xam ne ci wàllum actualité la di leen di sant di leen di gërëm di nuyu ñi nga xam ne ñoo féetoon ci wàllum technique bi parce que suñu gisee image ñoom la di leen di sargal bu baax baax ginnaaw loole di leen jox dig daje à émission càmburu bees bi di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom Omar gay waaye aussi jaajëfal bu baax a baax euh, suñu mbokk internet yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñu doon suivre sam euh, Samsidina Ndong depuis fi nga xam ne moo di diwaanu France ma koy jaajëfal bu baax a baax waaye aussi mbokk internet yi di leen wax rek bu si kanamee tuuti li nga xam ne moo di seen émission Thiaroye Matin da ngeen ko am fi nga xam ne moo di suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV ci noonu rek ñu daal di leen di wax rek ngeen woy di daal di suivre li nga xam ne moo di actualité yi ci 3W Thiaroye info.net niko sama natango waxe léegi Omar Gueye bu si kanamee di ngeen am sen émission càmparu bis bi loolu 17h japp 18h lay doon fi ci sen page Facebook Thiaroye info ci noonu rek ñu jaajëfal bu baaxa baax ñi nga xam ni ñoo fare woon ci walum technique bi ku ci melni rek gi nga xam modi Fatou Kanté way tamit jaajëfal bu baaxa baax borom BMD conception bala Moussa Diarra lañ koy wax jaajëfal bu baaxa baax équipe bu info TV mbokk internet ni lañ koy défé sa sene di len jox dig dajé ëllëg incha allah euh, même heure ci fi nga xam ne moo di seen plateau euh, Caaroy matin ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jaa ngeen jëf.